quarante mooy euh, euh, doog a jot am na itam leneen loo xamee ni euh, démb ba tey ñoo ngi koy waxtaanee mu jëm ci wàllu wérgu yaram gis nga ñi amee feebaru crise ñu tuddee ko épilepsie mhm. garab gi leen di faj dafa commencé manqué mhm. fi ci Sénégal on va en parler tout à l'heure puisque loolee itam wóorut mënuñu déjà am ab feebar boo xamee ne amul amuñu lu koy faj mhm. mu fekk si yeneen i feebar yoo xamante ni actuellement pour ñu faj leen c'est un problème puisque seen doom yooyu la ñu

nouvelle sax d'ailleurs pour ñi nga xamante am nañu euh, feebaru crise d'épilepsie nee nañ fa euh, garab googu dina disponible ci bu yàggul dara maanaam fii ak tey wala suba incha allah ci kanam dinañ ci ñëw. voilà donc on va revenir dans euh, quelques et puis euh, Covid 19 bi ba tey mu ngi fi. Mhm. mu ngi faagaagal ñu bëri ci àddina bàyyi leen ci xel bu ca kanamee ñu dem ministère de la santé et de l'action sociale li graaw nag mooy am na ay borom xam-xam yoo xamee ni saytu nañu xool ba ni virus bi mën na nekk sax ci ngelaw li. Mhm. organisation mondiale de la santé euh, dëggal nañu ko muy loo xamante ni daf ñu gën tiital xam naa ni mesure barrière yi dañ ci gën dolli euh, jéem di euh, xool naka la ñuy gérer environnement yi ñuy nekk. Mhm. suñuy néeg ak bërëb yi nga xam ne ni c'est fermé puisque bu ñu demee ba wopp gi mën la dal. ci ngelaw rek euh, booy noyyi loolu defe naa am na euh, lu ko gën. donc mhm. loolu OMS mu ngi ko reconnaître démb Mamadou Ndiaye. Mhm. que ay preuves émergées entre mhm. guillemets. Euh, ci transmission aérienne bi. donc mu ngi wax pour nit ñi di gën di ventiler ventiler espace yi nga xam ne ñi dañoo tëju. bu ko kenn mënul bu dee da nekk ci espace yu fermé nga takk masque loolu nag mujj naa doy waar. non dafa mujj doy waar ay scientifique ñu dajaloo ñoo xam ni OMS ñoo leen wala ñu jokk ci OMS ñu ci tolloog 239 scientifiques. ñoo génnee sonné alerte daan ne euh, comme que ba ñoo nekk ci mbirum gëstu beeg nekk ba léegi ci mbirum Covid 19 beeg ak li nga xamante ne noonu lay wàllee wala fexe solution. noonu la lañ ne lu tollook euh, li nga xamante ne mooy ci ngelaw li virus bi mën na ci di gën di euh, maanaam wàll wàllante bi dafay gën a gaaw ci ngelaw li te dina ci des loolu nag situation bi nga xamante ni contagion boobu na mode mode de contagion boobu nga xamante ni waa OMS fësal nañ ko wala scientifique yi nga xamante ni ñoo jokk ci OMS fësal nañ ko dina tax nag ñu gën a xool loolu gën nekk na situation boo xamante ne mbir yi daal doo xam fan lay mujj et puis chaque jour rek scientifique yi di gën di gëstu di génnee ay yëf yu bees ci li nga xamante mooy covid 19 voilà ñoom kat feebar bi dañu koo comprendre ndax mm-hmm. feebar bee ñëw caay-caayam caay-caay googu mu ñëwee nag euh, moo tax souvent may wax ni dafa bëri ay zones d'ombre yoo xamante ni ñoo ci ne j'ai entendu par exemple ce matin euh, am ku ne euh, te kooku borom xam-xam la bu ñu respecté loolu itam tey na xel ni dafa mel ni te loolu ñu ngi koy dégg depuis un moment ni ñoom. Euh, euh, ci seen i pouvoir ñoo créé ab virus. Mhm. créé ko tasaare ko ci àddina. Mhm. donc loolu des fois boo gisee seen ay taxawaay da ngay gëm ni sax li virus la boo xamante ni. ay nit a ko créé tasaare ko ci àddina. Mhm. après nga dem ba mu yàgg virus bi di gën di continuer bu teyee ñu ne la scientifique Angleterre yi nee nañu lii bu gannaaw subaa ñu ne la yi wax nañu lii bu gannaaw subaa ñu ne la scientifique Amérique yi wax nañu lii finalement sax ñoom euh, dañuy manquil ñun borom xam-xam yi nekk fii ci Afrique dem je disais euh, bi ñu euh, euh, ku mel ni professeur Daouda Ndiaye ñu bëgg ko def événement ñëpp kontaan ci oui c'est une fierté mais su fi non événement parce que borom xam-xam ba ca Brésil borom xam-xam bi ci Sénégal ak borom xam-xam bi ci États-Unis ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañu te ñoom it kenn ku ne wane nga sa ay preuve ci ay recherche yoo xamante ni yàgg nañu ko def ci ay wopp yu mel ni sibiru créé nañu ay feebar astafurla ay ay ay garab mhm. am na ci ay feebar yoo ko découvrir africains yi ñoo ko découvrir ba alerté ci ba mu toll fenn foo xamante ni tey ñoom ñëpp ñu ngi jóg euh, ngir jëm di ci wut ay euh, saafara mm-hmm. euh, donc ñoom leneen loo xamee ni waxati nañu ko mooy ni bu ñu moytuwul virus bi mën nañ ko am ci ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi et c'est des preuves yoo xamante ni démb la ko organisation mondial de la santé reconnaître ñu ngi ñuy xelalati mesure barrière bi tegu mm-hmm. mooy rek rek euh, bu ñu nekkee ci ay bërëb yu tëju euh, yu fermé euh, ñuy gën di ventiler espace yooyu bu ñu ko mënul ventiler ñuy takk masque donc imagine nga toog sa néeg yow ak sa jabar nga war a takk mu takk xam nga virus bi tamit dafa garaaw nga toog ak say doom ngeen war a waxtaan yéen ñëpp sa doom war a takk nga war a takk surtout suñu doom yi ndaw yi nga xamante ni ay cobraan lañu. <laughs> xam nga boo amee ay cobraan du ñu mën a takk casque nu mu tuddati masque. je te donc yooyu yëpp ay mbir la yu am euh, ci àddina des fois da ngay d'accord ni virus la rek bu ñëw mhm. mais des fois aussi da ngay am ay doute euh, ci euh, li ñuy faral di wax ni nouvel ordre mondial la tudd xaw ma xam nga mhm. nouvel ordre mondial boobu daf maa xaw a tiital man mhm. parce que ay nit yu am pouvoir rek jóg ni ñoom léegi ñoo war a toog pour saytu pour xool naka la ñu war a ak naka la ñu war a defee programme ni réew yi di di doxee c'est compliqué et nga gëstu encore te rends compte que il y a quelques années derrière euh, à travers ay rencontres à travers ay vidéos daan nañu wax ni bu ñu demee ba jëmmi jamono dina am benn virus boo xamante ni pandémie lay jur pandémie boo xamante ni dafay tax ñëpp toog seen ay kër man maa ci teg sama bët loo xamante ni mhm. c'était en 2001. après y a de quoi avoir peur quoi. mais bon comme ñun moom euh, ma ñàkk a njaay la juddoo fii ci Sénégal nañu sant rek te euh, ñaan suñu borom yokk ndimbal euh, bu ko defee ñay bàkkoo doole doole dañu am ñu bañ ñu cee faagaagal. mais l'essentiel mooy fàttaliwaat leen ni nit moo ko créé ou pas virus baa ngi fii et fii ci Sénégal am na ay nit yoo xamante ne ñoo ngi ciy faatu am na ay nit yoo xamante ne ñoo ngi ci ci ay nit yoo xamante ne ñoo ngi ciy wér am na ci ñu bëri ñoo xamante xamante ni ñu ngi leen di testé ñuy positif ci Covid 19. mais li nga wax euh, Pape Cheikh c'est tellement important ba nga xamante ni ndaxte monde bi dugg ci benn non non non mais non mais monde bi ni muy ni muy ni muy doxee noonu da ngay da ngay da ngay dañuy da à la limite da nga te pose des questions quoi nouvel ordre mondial euh, wax nga léegi depuis 2001 euh, bari na ay réunions yoo xamante ni boo koy xool ci internet bi wala ci yenn bindkat yi nga xamante ni teeloon lañ doon bind di alerté situation bi ñuy dund nii ah, dafa mel ne lu ñu programmé la woon dafa mel ne lu ñu waajal la woon à la limite doo xam sax ci ban situation la ñuy toll donc nekk na monde bi nga xamante comme ni ñu ko waxee ay borom xam-xam wala borom alal yi dem ba maîtriser réew mi bëgg nekk ci place sax entre guillemets yàlla ne ñoom ñooy décider donc nag li ci li a am solo nag donc ñun Afrique ñoo war a mën a gën xoolaat suñu tooga tax suñu taxawaay xoolaat suñu doxalin ndaxte eh, boo gisee ni ñoom seen biir ñenn ñi nga xamante ñooy jéem fexe ni ñuy créer eh, ni ñuy diriger monde bi wala nit ñi ñoom à chaque fois dañuy jàppalante seen biir donc ñun nag ñoo war a gën di mën di jàppalante suñu biir ngir mën a fexe euh, yenn genre situation yi bañ ñu bett ndaxte ñun tamit dañuy nekk nii rek comme di subir voilà en tout cas moi j'ai entendu ce benn borom xam-xam damaa fàtte tur bi euh, mu ngi doon séq waxtaan ak ki nga xam mooy El Hadj Assane ci rajo Futur Média wax na ci lu am solo bu fekkee ba ngeen ko déggaat peut-être bu la ñu lépp lu jëm ci wàllu wér gu yaram ci wàllu ci Euh, boobu ba tey ñu ngi euh, avertir di ñaaxe nee naa léegi euh, démb la ñu d'accord ni am na ay scientifique yu wax ni bu ñu moytuwul virus bi mën nañu ko jàpp ci air bi ñoom sax waa e OMS organisation mondial de la santé xam nga fan yii yëpp jubóowuñu ak président wu Amérique bi Trump mi nga xamante ni mu ngi def yu ko neex yu ko saf <laughs> moom day sànneeku Trump day fëlaale Trump daal day def yu ko saf fan yële bi crise bi ñëwee daal xolam jeex na ba mu xulóog ñoom mm. xulóo giwee ji am euh, puisque moom Trump ci boppam euh, euh, c'est désormais officiel que États-Unis dafay retiré wu ci organisation mondiale de la santé li ci garaaw nag Mour Ndiaye mooy mhm. États-Unis daanaka ñooy dëkk bi gën di dugal xaalis ci organisation mondiale de la santé mhm. donc pandémie bi li tax ñoom ñu mer mooy ne dañoo bàyyi waa Chine ci li leen neex Trump dafa neex loolu moo tax mu retiré wu ci organisation mondiale de la santé assemblée. Mm-hmm. et paraît-il que désormais c'est officiel. dem la ko sénateur yi daal di fësal di ko waral euh, wax nga ko bërëki ju bi début pandémie bi waxoon nañu ñàkk ànd ak ki nga xamante ni mooy euh, président euh, États-Unis di Donald Trump nga xamante ni doon wax nañ àndul ak waa OMS ni ñuy gérer li nga xamante ni mooy pandémie bi di Covid 19 mais surtout dañu bàyyi Chine ci li ko neex ndax dañ moom bu ñu seetloo début pandémie bi balaa moo doon dugg États-Unis sax doon doon la. daal loolu la ko jàppee woon moom ba mujj gi mu ak jaloore yi mu def États-Unis bi mu ñëwee euh, duggee États-Unis def fa ay nit yu bari faat faatu fa actuellement ni gis nañ ni sax ci yenn zone yëf yaa ngi gën a yokk moom ci boppam daal di fësal ni jaare fa ak sénateur yi daal di ne États-Unis léegi génn na officiellement ci ñi nga xamante mooy organisation mondiale de la santé leneen li nga xamante ni mën nañ ko ci jàppit waaye ci mbirum koppar bu ñuy xalaat ne États-Unis bu génnee OMS ndaxte bokk na ci ñi nga xamante ni aussi dañuy financé bu baax OMS moom euh, États-Unis foofu nag la euh, la ñuy war a samp ab laaj ndax États-Unis bu ci génnee euh, OMS dina mën a li ko desee rek ci ay dëkk yi nga xam ne fi ñuy affilié wu wala mën nañ jokk nañu ci moom ndax dina mën a financé li nga xamante ni mooy mbirum paj geeg ak organiser li nga xamante ni mooy mbirum santé bi ci monde bi loolu nag ay borom xam-xam ñu ngi koy samp ab laaj mais en tout cas ci gën a jàpp comme xibaar mooy États-Unis génn na ci euh, li nga xamante ni mooy euh, OMS te loolu c'est officiel. voilà donc euh, loolu la Trump wax. ak ñamu àndal. Mhm. ñoom sax ñu ngi waaj élection de waa amerique yooyu. Mhm. gis naa candidat wu Kucha bi Joe Biden. ak jëkkëru Kim Kardashian bi. Mm. dégg naa nee na day nekk candidat. Kanye. Kanye West Kanye mhm. euh, dégg naa dafay euh, euh, euh nekk candidat. Mhm. il a annoncé sa candidature moom Kanye West. Mhm. wala Kanye. ca Amérique. Euh, moom nag euh, xam naa bu nekkee président Kim Kardashian mooy nekk première dame waaye dëkk boo xamante ni Trump koy jiite bu ci nekkee président man du ma xaw a jaaxal <laughs> euh, dëkk bu Trump jiite bu ci Kim Kardashian nekkee première dame duma ma jaaxal first lady loolu dina doy waar de toute façon moom rappeur bi qui prône donc ci benn woyam paraît-il bu mu tuddee viser la viser les étoiles uh-huh. ci la annoncé samedi bi passé candidature am ci élection présidentielle yu États-Unis ñu nar ko amal euh, ca euh, euh, mois de novembre donc Kanye West déjà faisait partie des artistes black yu ñu doon wax ni souvent dafa jege Donald Trump waaye xam naa dina xaw a doy waar mhm. moom nag carte de san mi moom yii yëpp ay mhm. liggéeyu ndeyu kaañu weex la xam nga liggéeyu ndey day feeñ ba ci jabar ju jabar ju mool moom nag xam naa ne ndeyam ku sonnoon kër baayam la ndax moo ko moo ko moo moo ko jox kii nii euh, di euh, Kim Kardashian Kim waxuma wax ak moom mais xool Kim rek doy na xool Kim rek Kim di génn rek nga koy xool Kim génn ki Kim génn teleem rek baax na nga seetaan ko rek waxatuma la nekk ak kiim dëkk ak kiim di ànd ak kiim <laughs> di nelawandoo kiim donc kiim ba am ambition wu nekk président kiim kiim kiim Kardashian euh, euh, donc son mari euh, Kanye West dafa annoncé ni dafa bëgg a nekk président bu États-Unis et puis beneen candidat bi Joe Biden kooku man moom laa faral parce que mooy candidat wu Kouthia xam nga Kouthia joo ci boppam la bëgg mhm. te man nag Kouthia ki mu faral la faral tey Kouthia bu bëggoon Trump mu bëgg Trump mais nag Kouthia bëgg Joe Biden mooy beneen kon candidat wu États-Unis bi xam naa ne bis bu campagne bi tàmbalee est-ce que sax Kouthia du dem euh, États-Unis pour mm. euh, di ko campagnal mais pour le moment moom Joe Biden ci boppam sax dafa téye dafa téye tànkam ndax coronavirus bi waaye keneen ki moom daa am fit moom ma nga te yu ko neex moom président bi Trump moom président wu Brésil bee yam gis nga bi crise bi tàmbali moom daa wone carrément ni gëmul affaire yi mm-hmm. naan nit ñi génn leen dem leen voilà gis ngeen euh, kii mooy Joe Biden mooy beneen candidat wu euh, élection wu États-Unis nga xam ne novembre lay am euh, moo samp ndëndëm euh, ci digganteem ak Donald Trump et puis Kanye West wala Kanye West moom it déclaré na candidature am donc je disais. Mhm. ki niroog xaw niroog Trump mooy président wu Brésil bi moom dafa nekk koo xamee ni bi crise bi tàmbalee ba tey da doon wane ni gëmu ko et tout ça. Mhm. mais il a été testé positif au Covid 19 moom Bolsonaro Bolsonaro Bolsonaro voilà Bolsonaro y a pas de S bàyyi sa prononciation yi ngay tooñee nit ñi amul ci O bi yaa ba O bi rek O bi amul S tooñ nga xam amul S ci sant jàmbur bi bu ko bu ci dugg kii daal mooy président wu président bi moom ba pare dafa journaliste yi ni am na feebar bi ba pare daal di daan daan ma sore tekki maskam moom daal ko dara saful la dafa jékki-jékki rek dégg naa yeewu keroog am ay symptômes coronavirus mu dem ci hôpital ba ñu seet yaramam testé ko bu positif. <laughs> voilà et actuellement ku ne xam na ni Brésil mooy troisième pays bi mm. ëpp ay cas. Mm. Euh, ginnaaw euh, États-Unis euh, Brésil moo ci topp. Mm-hmm. après Brésil Inde. Mm-hmm. voilà donc ñooy ñetti dëkk yi nga xamante ni fi mu tollu tembe foofu la Covid 19 bi gëneewulee ñaay. Mm-hmm. Euh, donc loolu mu ngi xewee euh, Brésil seen président bi actuellement dafa koro. oui dafa koro déjà plus de 60 000 cas la ñu am foofu euh, Brésil Jair Bolsonaro nga xamante ni aussi noonu moom il se vendait de partout que ni du sol masque da gëmul feebar bi dañu def di continuer def ay rassemblement am ba ñenn ñi sax actuellement nii gis nga ko ci crise bi mu dàq ki nga xamante ni mooy ministre de la santé ba actuellement ni Brésil amul ministre de la santé li ko waral mooy moom dafa gis ni feebar bi jarul woon yenn euh, li nga xamante ni jar na ko fii mooy polémique beeg coow leeg yooyu mu doon continuer di rassembler woog comme ni ñu waxee respecté wul benn mesure barrière léegi nag yëf yi ci dimanche bi la seet duñ ne am na euh, gis nañ ko ci benn réunion sax mu toog euh, di waxtaan ak ay journaliste di sëqat commencé ñi gis ko seetlu ko ñuy sëq muy sëqat ak def ay yëf ci gannaaw ci ëllëg sa lañ ko teste ci mardi bi ñu annoncé officiellement te moom ci boppam moo def annonce bi daal di préciser que ni moom euh, gis na ni am na coronavirus bi ni ñu jàpp ni feebar bi nga xamante ni moo lëmbee àddina leneen li ñu ci jàpp nag moom wax na ko nee na bi mu déjà bi mu commencé gis euh, naan na chloroquine di xaar que ni euh, yaakaar na ni yëf yi dina gën a mën a am ab tan en tout cas li ñu ci mën a jàpp nag mu nekk loo xamante ni coup de tonnerre la mën nañ ko doon mën nañ ko jàppee noonu ndax de démb Brésil bi bi ñu annoncé ni moom ci boppam bi mu defee annonce que ni feebar na ñëpp xaw nañu jaaxle te ak ni mu doon dundee ñeneen ñi bettu leen ndax ne yaakaaroon nañ ni xamoon nañ ni fii lay mujje ndaxte moom mosul woon gëm ni euh, feebar bi jar na li nga xamante ne moom lañ ciy def nii. cest a dire moom dafa doon xool entre sauver économie bi. ak ak ak ak gën a bàyyi xel. ci lu jëm ci wàllu santé. mais du woon peut-être ña en fait personnellement analyse boobu laa def du woon xëj na ñàkk gëm ni feebar bi am na. Mm-hmm. mais c'était un choix à faire soit santé bi la waroon sauver soit économie bi la waroon sauver moom xëj na jàppoon na ni que sauver économie bi moo doon gën ci dëkk bi moo tax mu doon tenir ce discours là aux populations. Mm-hmm. Euh, pour ne pas wala panique euh, ba nga xamante ne nit dinañ mën a vaquer à leurs occupations peut-être qu'il l'a mal fait mënoon na boole sauver économie bi et puis parler euh, euh, aux gens d'une manière bu nga xamante nit yi dinañ mën a euh, dem seen ay tout en respectant les mesures barrières. malheureusement il l'a mal fait. on va pas en faire un débat. yëfi Brésil la ñun am na ñu ñu doy. <laughs> suñu réew mi ñu ngi xoromante rek.